te yéen itam yàlla dekkal na leen yéen ñi doon fa kanamam ci seeni moy ak seeni bàkkaar ci biir yooyu ngeen doon dund démb topp doxalinu àddina tey déggal kilifaak boroom sañ-sañ yi ci jaww ji di xel mu bon miy jëf ci kuréelu ñi déggadil yàlla te nu nit booba àndoon nanu ak ñoom ca seen dund ga di topp suñu bakkan ci wut bànneexi yaram ak coobarey xel noonu ci suñu bindu nit yeyoo nañu meru yàlla ni ña ca des waaye yàlla mi bari yërmande ci kaw mbëggeel gu réy gi mu am ci nun dundaatal nanu ak kirist fekk ndee lanu woon fa kanamam ci suñuy bàkkaar ci kaw yiwu yàlla ngeen mucce te dëkkal ak kirist yeesu dëel nu ak moom ca barab yu kawe ya noonu ba faw jamono yem dina làññal fi suñu kanam yiwam wu réy wi xel mënta takk jaar ci baaxaay gi mënu won ci kirist yéesu ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu ndaxte jëfi yàlla lanu moonu bind ci kirist yéesu ngir ñuy ci jëf yu rafet yi mënu fàggaloon ca njaalbeen ga kon nag yéen ñi dul yawut juddu yéen ñi xaraful te ñi xaraf ci seen yaram ci loxool nit ñoo leen teg ay yéefar fàttaliku leen lii booba amuleen woon benn cër ci kirist mbaa benn baat ci kuréelu bànni israyil bokkuleen woon ci kóllëre gi yàlla fas ak ñoom te ëmb digg ya amuleen woon jenn yaakaar mbaa benn xam-xamu yàlla ci àddina waaye léegi ci seen bokk ci kirist yéesu yéen ñi jege ngeen ndax deretu kirist ji ndaxte mooy sunu jàmm moom mi jël yawut ak ki yawut def nu benn ñag bi doxoon suñu diggante te sosoon suñu dëngoo moo ko màbb ci li mu joxe yaramam far noonu yoonu musaa muy ndigal ya ak dogal ya noonu lañu jële yawut ak ki yawut def nu benn ci moom ba nu jàmmoo te ñun ñaar ñu def benn jëmm jubale nanu ak yàlla ci dee gi mu dee ca bant ba ñu ko daajoon dindee noonu suñu tongoonte bi mu ko defee mu ñëw yégal suñu xabaaru jàmm fa kanam yàlla yenn ñu sori woon ak ñun ñi jige ndaxte ñun ñaar ñépp am nañu bunt ci yàlla baay bi jaar ci kirist ci ndimbalu menn xel mu sell mi noonu dootu leen ay doxande mbaa ay gan waaye am ngeen baat ci kuréelu gaay yàlla yu sell yi te waa këram ngeen yéen a ngi sukkandikoo ci fondement bi ndawi kirist yi ak yonent yi tabax te kirist yeesu ci boppam di doju dalil wa ci moom la doj yépp ràbbuloo ba tabax bi jóg di màggalukaay bu sell ngir borom bi te ci seen bokk ci kirist yàlla boole na leen tabax yéen itam ba ngeen nekk dëkkukaayam jaar ci xel mu sell mi